Bombardier Boy Mbour moo ñu wan ginnaaw moo teg pied gauche bi ndeysaan kurpañ dalagul dara dalagul diggante Boy Mbour ngi ware Mbour jóge ci écrit Bombardier cokkaas na moom Boy Mbour waaye Doudou Sané ngi ni tekk di ko xaar Doudou Sané dafa bëgg a dine ko ba jàpp ko wax moom xataf yaa ngi noonu ndax Boy Mbour dina ko nangu. avantage su Boy mooy xeex. mooy xeex déplacé wu mais tànk bi. waaw ndax bi tànk bi dafa jege Boy Mbour lool. Boy Mbour xeex moo ko arrangé combat bii nii. waaw ndax njabootu lamb yëpp xam nañ ne Doudou Sané mbëru mbapat la. dëgg la. te Boy Mbour xeex. mais mais Doudou Sané gardem bi suufee na de. kii bi daje baaxul non xooloo non non bu ko Boy Mbour xoolee. Doudou Sané Boy ña nga ba tey non du loolu de. ndeysaan xadafi bu Diofior ñu gën koo xam ci Doudou Sané Boy Mbour xeex bee ko gën a arrangé moom Boy Mbour xeex bi waaye bëgguma loolu. Boy Mbour bu mu resté benn place. day xeex xeexu dam yee. moom laa gën a bëgg. day xeex xeexu dam yee bu bëggee. Doudou Sané Doudou Sané lay wër. waaw du la boo ne moom day dineeku. day didee ko ba jàpp ndeysaan waaye bu booy mbuur nay xeex latéral góos taxawaay bi bëgg gisoo même Doudou Sané li muy sànni baaxul Doudou li muy xeex baaxul li muy sànni baaxul garde bi baaxul bardi bi boobu suufee na lamb daal lamb daal dañ koy jàng idi waaw père bëree du nag du neexee dugg ci ndax taxawaay Doudou Sané bii Doudou dafa tàmm dafa tàmm dongali xoolali xoolali non kii mari waaw baax na maa la ko wax bu dajee xeexkat dañ koy gaañ du xeex bu waaw baaxul garde bi suufee na gisoo. te xeex baaxul. mënta xeex mënta fayu. idi mënta dóor mënta fayu. mais mais booy mbuur bu mu taxaw. waaw lii mooy avantage bu mu waaw. déplacé bi mooy avantage dóor gauche daw génn. une deux. mais duudi jàppante bi lay wër. day mujj xaru ci kawam. arbitre bi woowaat Boy Mbour fi mu ko jàpp foofu la Boy Mbour fi ko jàpp foofu la Boy Mbour fi mu ko jàpp foofu la. waaw Boy Mbour fi mu ko fi mu jàpp baax na. fi mu ko jàpp foofu la. damier bi moo ko arrangé fi mu toll nii. yéen a déplacé wu. c'est tey jii dem eh, jaxaat mais bu mu taxaw. c'est que Doudou dafa bëgg a jàpp. bu eh, fayu na eh, Doudou remise na jaar yoon. Boy Mbour Doudou def na jàpp na ko jàpp na ko Touba Boy na dëgg. Boy Mbour bi lay bañ. mën na ko gaañ. léegi doon jeex na jeex na jeex na jeex na waxoon naa la ko. benn song la ca biti la benn song la ca biti la commencé. déedéet baaxul. waaye si biir la commencé. jeexul. jeex na wax naa la jeex na si biir la commencé. wax na dëgg. si biir la commencé gàtteeg door gàtteeg daan fay na ko. si biir la commencé per. naa la bu jàppee joof yor. Ajaayiwa koni duudu ha Ajaayiwa ndeysaan fala waa Diofior iri fala waa Diofior mi ngi noonu waa Fimela waa Ndangan mbaru ndesma mbaru Bombardier ma daanu na oh, mbaru Bombardier ma daanu na mbaru Bombardier ma daanu na mais man bëgguma woon taxawaay bi mbaru Eumeu Sène bee ko daan nag mais bëgguma woon taxawaay bi waaw bëgguma woon taxawaay bi booy mbuur li mu xeex bu ko booyoon dara dara dara dara dara dara dara dara dara dara dara dara dara